Jamais que ça Kalau dia aku aku tuh lu fest fest satu Ah, ini jam. Mungkin apa apa mau aja. Ah, jafe loolu bi yéen ah yow loolu loolu romb heure bi. dañuy romb da nga daan tëdd heure bi dara fekk da nga tëdd. romb xam nga temps yii déedéet déedéet da nga romb déedéet moom la gën a day romb nit ñi du la nuyu. nuyu ma leen damay romb bi yéen a mën a fenn. moo ngi nuyoo waaye yow ma nuyu lépp li koy jaar Sénégal a neex nag. ba ngi romb yow déggoo nga téléphone jug daw. fii nga ñu ñëw jug daw sa tubay ji xaw ma daal loolu loolu ñuy def fii daal ba heure bi man loolu rek moo ma jaaxal li nga xam ngeen heure bi jot. waaw waaw. lu ñu liggéey ko minuit parece que inan yéen li ngeen ma may sama doom mu ne ni ngeen génn kër gi yéen ñaar ni ngeen génn kër gi yéen ñaar fàttali fàttali kër gi demal ngeen moom da day dox génn nga ci ànd ak ñun rek kër gi ni ngeen ko génn yéen mënu ma leen mënu ma leen a wéy dama leen tëdd di nga nekkaatee ba doo leen tëdd heure déglu leen bu baax doo leen wéy doo leen tëdd heure taxawaalu iri lu bon ngeen ko seen xaar ni xol yi mu lay rek ñu takké seen bagage day day nak seen bagage kër gi ñu meño lay rek sa bokk Bro, kita nggak ada pendiwak. Kita gong. Lo tak kamu nak kan? Tak. Wow. Yow nga ne si man kese nga Wow. Sa ñett xarit yooyu wax nañ la yow nekk yow yemoo si man am na ñeneen ñu ba nggak akan dipetik ya doomu xaraan kenn amu si liggéey kenn jàngul liggéey naar bi fen loolu kamu ngeen yow sa ma xon naa sa nga xam la ki su awa to jënd mau tak ma mu jël di wax sa li mère di wax sa dëgg la mère pay ñu yëpp dëgg la yow booy yéen dafa lañ def. dem si sama sama gerte gi. Mm. sama ay maxaal day am am na fii gerte am na fee gerte di duul yéen yéen yéen boo leen diggante kay maa ngi xëy xëy naa. ah donc su ma amoon dix gerte sax ñoom si paraasi bu yéen moo leen dem fenn di ma fenal. bañ mbéj ma si digg koñ bi si digg samay naw oh, oh, oh, la yëpp ñu mbéj ma ko. mën na a yaa si dàq yaa si dàq fenn. mais sa loo xamoo lonk sa lonk yi ngay mel ne kuy sàmm ay béy nii. waaw te daal yow daal dañuy wax fay laa ni man leen booy man sama yoon nekk si ñoom ñaar booy leen toog di xuloo man leen booy sama yoon nekk si bàyyi jëw voilà nit nit du jëw. yow yow yow booy yow da ngay ngay fel nii ñi ak ñi moom. ba dàq yàq man. waaw ma ko doon loolu moo la fekk. man dama leen dama leen ma faal jaay